الخالق waaye am na am na bëri ñu ngi leen di sant bu baax a baax ak yëpp moom la def daal kon ñun waa day dafa ngeen di waa tëj nañu suñu jant bu baax a baax ak mu jot nag dañoo faral di jël benn dem dañuy waxtaan ak yéen ren nag dañoo bëgg jël dem bi ñu am ak ñax yi muy dëgg-dëgg yëpp ñu kontaan ci yàlla ibnu Mansour wax rek ci téeréem bi ñu wax insa allah rabbi dafa wax ne al yaqinu huwa al ilmu wa zawaal wa taxqiqu am nee na yaqin mooy xam-xam boo xam ne sàkk amatu ca te mbir ma dem na ba am am bu wér nee na loolu mooy al yaqin am na hadiis boo xamante ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax mu jële ko ci Abdullah ibn Mas'ud mu wax ne sabru nisful iman wal yaqin al iman kullu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la suñu borom waxoon ne wa maa yantiqu anil hawaa du wax mukk loo xam ne waxu neen la wala wax kasaw kasaw dëgg wax rek wax yi moom xam lu jóge ci suñu borom la suñu borom muñ mooy genn wàllu ngëm waaye yaqin mooy ngëm léppam nee na muñ mooy genn wàllu waaye seet ci sa ngëm sa ngëm nag nee na mooy ngëm gi yëpp seet ci bi nga ci am na mooy ngëm gi yëpp ci amut ngëm nga amut moo tax ñu dem na ba wax ne ku ñu wax jaayis wax na ni al yaqiin asul iman fa ida waqa al yaqiin fi xam min baxsa jawaari iman wa li liqaa illahi taala bil amal bokk na ci mandarga yi nga xam ne ci lañ xamee ne dam ne nit ki gëm na am na yaqin ci boppam mooy ay cëram day sawar ci jaamu suñu ki su fekkee ne yaqin am day ay cër yi day sawar ci nit bu fekkee ne dem na ba buy bëgg a julli di fudd wala mën naa xaar ba ci kanam wala muy fukki sàkka di yeexem tamit kon nee na ma ñaan yoon ci ne ah kon daa gëm moom bëgg a wàññi mooy ko xam ne moom liggéey dana ko wàññi yàgg ba far sax xomm ko am na ñoo xam ne daw 10 kilomètres sax moo leen gën a jëm te moom dina ñaar rakk loolu ci màndal ngay ñàkk ko moom xam nga du ne moom suñu borom mën na ko jege dama def si ñàkk gëm xol boo xam ne iman nekku ci moom borom sawaram na kenn kon ki nga xamante ni yàqinam ñu ngi ci sikk sàkk jëm sax ñu jéem a xalaat sëñ borom sëñ bi xam nga tànn dafa ay ay ay tànn ay tànn yëpp la amoon xam na ni sëñ di ko suñu borom di boole mbëri di ay ruu la ko di ko ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnee ko nag te bi tànnee bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon ngëm gi des na ci yow maanaam <coughs> dëgg-dëgg ngëm daal mooy ko si dine sawar ci jàmm boo gisee ñi ñu baax ñi sell ñi day mel ne dañuy dem sax ba jekk ci jaamu yàlla day mel ne loolu rek lañ naw te leneen loolu bëggoon def loolu duñ man waaye bu dee jaamu yàlla ci dañ ciy sawar loolu ku nekk xam na ne Cheikh Mamadou Moustapha bu daan def xam ne yi bu eggee daf ko yëngu sax ndax daanaka julli dañ yenn mu defaraat moo tax mu ne فإذا وقع الشيء في خلق انبعث الجوارح كلها من خارجها على أعمال الساعة su ngëm nekkee ci nit ki daal xel yëpp day nangu ngir dajeeg suñu borom tabaraka wa taala moo tax mu ne am na ku ñuy wax Sufyaan al-Thawri war ma ni إذا وقع اليقين في القلب كما ينبغي طار الشارب شوقا إلى الجنة والجنة nit ki su ngëm nekkee ci moom toujours mi ngi daw sawara daw wuti àjjana te loolu ci ay jëf lañ koy mën a amee waaye bu fekkee wax kese la lu sëñ bi diggee rek nga def ne yaa ci jiitu te yow sëñ gam sax seen la loolu tam nu ma damaay sëñ bi moom dafa ay tànneef la am te tànneef yooyu jaamu yàlla gi jullit sell la moo ci jiitu bismillah moo tax mu al yaqiinu min al iman bi manzilati ruuhi min al jasad nee al yaqiinu min al iman bi manzilati ruuhi min al jasad nee certitude maanaam ngëm euh, yaqiin ci doomu aadama nee na mi ngi mel ne ruu ci yaram mi ngi mel ne ruu ci yaram yaram boo xam ne amatul bu ko ne xam na ne dañ ko tuddee sax euh, nit nit kooku dañ ko tuddee ne néew la ñu nee na nag nee na yaqiin su amul ci ngëm nee na day mel ne ngëm joo xam ne nekk xam ne doomu aadama dafa gaaw a fàttali waaye koo xam ne booy ñëw ci àdduna duñ la tuddee doomu aadama boo fi jógee duñ la ko tuddee ndax nit ki bu soog a ñëw ci àdduna liir bi la ñuy wax bu faatoo ñu ne néew moo tax am na borom xam-xam bu mag wax wax ci am solo neewoon na diggante liir bi ak ngóoj si ak néew bi dana def lu ñaaw ci te nag li ci gën a yàgg mooy bi ci ci des yëpp temps bu gàtt ndax boo seetloo li fi nekk ci ay néew yu ci kenn ko mënul toll bu ñëwoon ci kaw suuf ñu xajit ci àdduna waaye suñu borom moo ko bëgg moom euh, kuy dund ci kaw suuf rek ku nekk rek suñu borom lañ lay préparé wala jël sa bakkan daf nga mën a xajal ñeneen ñëw maanaam faatu gi kii faatu doomu aadama bu ñëwee suñu borom da koy utiliser ba nga xam ne da koy nekk jaamu da koy utiliser ba nga xam ne dana ko liggéeyaloo muy liggéey liggéey liggéey ba sonn mu faat ko bàyyi ñeneen ñoo jëriñoo liggéey boobu ñoo ngi liggéeyaat ñeneen ñëwaat parce que dañ ko sañ a bañ ni koo gis rek ma ngay góorgóorlu naan man de sama kër yi nangam nangam sama kër yi te fekk yow li ngay liggéey ba ngeen bàyyi wala nga ne sama compte bancaire bi li ci nekk nangam nangam liggéey bi ma am sax ma am beneen ñaari liggéey sax ci wane Ah, parce que il faut nga liggéey suñu borom la de la dundal am sañoo ko bañ. loolu rek da ngay def rek su fekkee xamoo woon li la suñu li xamoon suñu borom andi def rek da ngay sonn sa bopp. ko dee nit ki di daw fekk li muy daw lépp da koy liggéey rek mais moom dañ ci jariñu ndax ko jël ab jaamam la suñu borom da ko utilisé di ko liggéey loolu. bu dee kii bay mi ngi bay bu dee kii tabax mi ngi tabax ku ci nekk la nga nekk rek yaa ngi ciy nekk mais da ngay da ngay jàppale doo fi jóg ndax da nga gis koo xam ne doon alalam dana dem ba bu rombee alalam sax xam ne lii alalam ci nasaraan yi da ngeen toll si ñoom dañuy dem ne sax seen alal ndax bari ko rek te koo ci bëggoon a jël ab mu xeeb di xeeb la mu am waaw léegi loolu day dellu ko xaw ma wóor yeeg yi ñaar bi nekk ab jaam loolu fi mu day liggéey ba day bàyyi ko ñeneen ñooy jëriñ ñoo ko ñooñu def dëgg yàlla day yaatal te moom il faut yàlla ray ko ndax adduna bi mën a mu yaatal ñeneen ñeneen planète bi day fees ay doomu aadama waaw ku ci ne booy dund rek am na bis bu la suñu borom defaat ko jël sa tur indi sans sañ indi ñeneen su ko defee bu jël loolu dem jëm ko wala jëm mu àtte koo xam ne jëmm ji moom des ci suuf si waaye kooku rek la suñu borom soxla wala yow ngay xa yàlla ñaan ñaan boo daa fekkoon booba diine sax am na fi ñu ngi jàngal Alxuraan waaye nag defin ba moo desoon moo seen ndax booba nit daan tare tare Alxuraan ci di. di bàkk ñu koy wër di ko jox alal bu koy def defit boo xam ne du sell di tari di ci ay taaso booba nit ñi tam ku nekk gën a bëgg lay sa borom ku rek daf yaa a lay sa borom sëriñ bi daal di feeñ nag gannaaw moom mooy a yeesal diine ji daal di ñëw nag daal ne man de danaa jéem a yeesal dama fekk fekk booba nag buur yi ñoo fi nekk ñu jël alal ñi ku ko bari lool mu ne ñii daal bëgg naa leen a defal defal boo ci boo ci gis ku gis sa morom ko sa sa morom mooy seen jotaay bi ak ne ko sama sëñ loolu sëñ loolu def bu njëkk nag ku gis sa morom muy bàkku ci kawam dafa yàqu mu xool xeebante am

mu ne doomu aadama bi yaqin ci moom mi ngi mel ne ruuj ci kaw yaram su dundee ruuj gi rek yaram ba néew lañ koy kon yàlla ñu yàlla ma mooy comme ni nga gisee nasaraan yi ak ñi xam ne bokkul ci diine ji da gis koo xam ne mag lay doon mu kàllaf lool nga xam ne boo ko xaymoon ci réew mi euh, day nekk. koo xamante ne nii notable bu mag lay doon ñu gis ko ci lool nga gis ko bu sol ak ki toog ak ki doom kooku daanaka li ñuy wax ni nit ki boo xam ne am néew xam nga daanaka xaw naa jege lool xam nga mu kàllaf lay doon wala kilifa mag ba pare nga gis ko bu sol ki te ay moroomam jëlee wu xalaatuñu ko parce que ñoom yaqeen am na ci seen xol jomb nañoo sol loolu. kon kooka mel na ne yaram ba génn na ci ruuj misaal bi mooy mel noonu ñu koy xool ba gis koo xamante ni itam am na sama benn taalib bu nekk Allemagne nee na da doon jaay ci benn feet ba mu yàgg mu fekk ba góor bu màggat fekk ba ànd ko tubaab tubaab bu jigéen soxnaam mu laaj ko te foofa autorise la sax waaw dafa jóge Allemagne ñëw autorise fenn nee na mu gis tubaab bi ànd ak mu gis nit ku ñëw ki ànd ak ab tubaab ñoom ñëpp ñu màggat mu jaaxal loolu waaw lii ñu mën a nekk waay ndax nit ku ñëw ak tubaab bi ñaari si ñub seen daawuñu dem ba màggat nee na ñu mu laaj ko kañ ñu wax ko jege fanweeri at ak yoon daal waaye dafa toog ba yàgg ñu teg ay musique rek nee na góor gi ab bant la yoon waaye dajul ba teg nee na daa fekk ba biiram mu jëlaat bant bi ànd ak tubaab ba ànd ak tubaab ba dëgg ko rek. ma ne ma sëñ bi li tax ma la koy nettali damaa sant sëñ Tuubaa ndax damaa xam ne bu fekkoon du ngeen ñëw ci réew mi ñun ci xeeti nit yooyu lañ doon. nga xam da ko yërëm bant la yor waaye nee na daa am musique bu ñu teg rek mënatu ko mu teg bant bi nee na nee na du ko du ko tëjatu. ànd ak musique ba fecc ba xolam sedd bu ñu daal bant kooku nag nee na yaramam dafa daw mën nañu leen di a waaye foofu la toll loolu xam nga misaal la ci dafa doon wax ci moom day mel ne jëmm ji amul xam ne kooku ak maasam Sénégal yan xeetu lañu war lool mooy notable yi gis ci dëkk moom ñoom ñuy arrangé problème yi sociaux yi am ci diggante kër yi ak yooyu waaye xam nga ne ku ñàkk dara noonu kooku mënut a mënut a njëkk loolu ndax yàlla def na loolu nekkatul ci jëmm yi jëmmi kese moom ci nekk moo tax mu ne wa isa waxamul yàqoon fi xam امتلأ الحب لله والرضا من الله والخوف من الله والحب والعظم والجلال لله والتوكل على الله والرجاء في الله والاستعانة والتوفيق إليه فاليقين هو الإيمان كله nee na nit ki su amee yaqiin ci boppam day gërëm lépp lu ko suñu borom teg ci natt nee na day wakiil ci suñu borom. day yaakaar suñu borom day jël léppam suñu borom ci njëkk muy ab tawakkul tawakkul mooy nga dem ba nga toog natt ak sa kaw nga defe ne doomu aadama wala nga defe ne ay pexe la wala sa pexe bopp nga ne man kat maa ngi sama bopp waaye maa wakkil ñaan ko suñu borom mën na ko jël war yi daal loolu moo gën a jafe moom mooy alhamdulilahi ala kulli haal natt boo barab boo toll rek nga nga nga nga gënam suñu borom waaye nag bu dee loolu nag dëkk waaye yi jafe ko mooy alhamdulilah ala kulli haal wal xawf min allah ak ragal yàlla loolu tam martaba bu jafe ndax ki nga xamante ne euh, euh, ragal nga nasaraan bi gis la ba boo doon wax ci téléphone tey sax wax jooy wax da nga koy saytu waaye mën ngaa wér jëm sa bopp

noonu la mel ci suñu borom ndax dafa am ku masa jaala ci jamono yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam daal di ñëw ci yonante ne nañ ko yonante bi ne nañ ko def li ci war ñu jam ko ba mu faatu ndax booba sëyoon na ba noppi jam ko mooy àtte bañ demee ba wàññi ko yonante bi jiitu am ñaar yonante bi dem am ñaar ñu ne ci ko jiitu di wax di jëw kooku fàtte naan koo xam ne moom war nañ jaalo waaye lay jaalo waaye lay jaalo rek yonent bi lañ gis ñu topp ci gannaaw ñu dem ba mu yàgg dañu gis mbaam mu mel yonent bi ne leen xulaa lekk leen yéen ñaar ci lii lii mbaam mbaam mbaam mbaam waaye yéen ngeen ndax li ngeen di def moo jëfandikoo doomu aadama ñooy jëw gis naa ma ngay dégg ay malaanam ci àjjana ndax moom def na bàkkaar moom def na bàkkaar ko la ca wax bàkkaar ba wàcc moom mu dem àjjana ñoom ñu ñëwaat di bàkkaar ñu jëm def na ko oyof la fekk lu gis la bàkkaar bu xam ne daanaka moom kon ki nga xam ne dafa ragal yàlla mbokkam lu ñaaw ak di ci dimbali mooy foo amee jafe-jafe nga dem jàpp ba sell ñaan wala nga jël sa xasida jàng ko ñaan ci suñu borom sa aaju faj waaye nag doo jàpp ne benn dama kenn la ko teg moo tax mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom naka njëkk dafa mos a wax ni al imaanu qawlun bil lisaan wa i'tiqaadun bil janaan wa amalun bil jawaarih wal arkaan yaziidu bit taaat wa yanqusu bil maasi wa zallaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nee na uh, yaqin ak ngëm nee li lu ñuy wax la ci làmmiñ ba noppi am pas-pas bi ci sa xol ba noppi cër yi di kon nit ki mënut a wax ne am na lu ñu mooy li ma njëkkoon wax sànq moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nee na mooy ngëm gi day dolli ko topp yàlla waaye nag day wàññi ko mooy yi kon nit bu amee ngëm itam lu gëm gëm bu dee def léeg lekk mooy yàlla bu yàggee ko bu dee wàññi moo tax bu dee faral di jàdd bu yàggee day dem ci solo ndax ngëm gi wàññi ko ngëm gi wàññi ko day dem dal ko fa des bu dee koo xam ne ngën ngëm dëgën ko wala ca di mooy kooku moom xam nga daanaka day daal di jeexal dara du ko desee nga xam ne sax dañ koo formé woon formation diine mu jàng xam li mu war a dundee bu fekkee mooy na gaaw tur génn gis yàlla mën na ko déglu di di mooy di ci boole wax njëm nga day jeexal dafa des la yàlla suuf yàlla nañu ci yàlla moo tax mu ne. yasiir bi daa waaye dafa suuf day wàññi ko ci ay waaye day wàññi mooy ak yu ñaaw. moo tax suñu borom wax ni wax na ni amoon na sa kii dafa ko naan ñu ngi leen dal ñu leen wal iman kon képp di nga xam ne loolu day day wàññi ngëm di la sorel mooy li sëriñ sëriñ bi waxoon rek ndax dafa am barab bu sëñ bi toogal di waaraat tedd Seexul Xadim mooy tomb yooyu mu daan def am góor bu fa ñëw mu sant loo ne ko sëñ bi de déglu waxtaan bi ko waxtaan xalam seen buy fekk yoroon na aw fas xam nga mag ñi fas sàll lañ koy wax sàll mu dégg ki ma àndaloon ne ko waxal ma ko baax ne ko sàll bu mu yaram jox naa ko addi bi fas yu mu war a mu ndax daa bëgg ci waxtaan sëñ bi ne ko ne ko demee gis nga ko sàll boo xam ne bu ko waree da wàcc ko daal dem ba àjjana loolu daal di jege si bu si bu fekk am nañu ne ko digg naa lu may ko naan ba nekk si bu toog sëñ bi daal di ne ko jege si ne ko jege si sëñ bi tomb ñetti tomb benn tomb mu ne ko li mën a def li toog des mu tombal benn tomb ak li mënut a def li ko ñetteel mu ne ko li ëpp a def. mu ne ko li mat a def tomb bu njëkk mooy li mat a def mooy jaamu yàlla daanaka day topp day dëppoo day dëppoo li ma doon wax léegi moom yéen seen bitaa ak yéen ko suñu maas yi mu ne ko jaamu yàlla la sore mooy day yokk ngëm di ñàkk ngëm moom loolu ñoo taw loolu boo xam mu ne ko kon del jaamu yàlla ndax da lay sore sawar la jegeel aljana mu ne ko li matul a def nag mooy fo la jëriñ dara bu xëccal dara bu la sori te doomu aadama dundam dafa gàtt mu ne ko li ëpp a def nag dafa ko sakkal xalaat wax nañ ne ba mu waxee loolu sax dafa jël to dafa jël dafa dafa tëb tomb ba sànni suuf si ba ñu fa nekkoon sax am na ñu mën ñu ko li mënut a def nag te bu sakkal xalaat lépp a def te bu ko sakkal xalaat mooy mooy yàlla daal di tibb sànni ko xam nga kooku da ko fàttee ci ngir dundam ndax aal bi sëñ bi wax ak moom ak wax ak moom demee kooku da ko fàtte moom kenn kon boo seetloo sëñ bi léppam dana naan xel lu wax ibul wama abaa bi yaabaa seetlu loolu ni mu dëppoo ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne ko li ma def mooy jaamu yàlla dana jegeel ajjana la sori sawar xool ni mu dëppoo ko wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yasiru bi taa وينقص بالمعاصي دم الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي boo seetee loolu benn mbirum sëñ bi nag am jàngale rek noonu la demee lépp loo dégg mu wax ko rek moom la nekk sa las ñoo ko am kon loolu mat a bàyyi xel nit ki booy natt sa bopp da ngay xool ba xam ne ngay def dëppoo naa kii di wala moo dëgg nga xam ne moo tax li sëñ bi gën a Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat ne tam ne ci addis boo xamante ni Abdullah ibn Umar solo mu ne inna al iman la yaxlufu fi jawfi ahadikum kama yaxlufu aw ay kama yabla ak fasalullah ay jënd al iman nee na ngëm day dana màggat ci seeni xol ni mbubb de ràppe nee na ngëm de day ràpp yéene di ràpp nañ ñaan nee na na ngeen ñaan yàlla di yeesal seen ngëm xam nga ki nga xam ne dafa jënd ci diine yar ko ci lislaam nàmp ko màgg ci ba dëgër ñëw bi tim réew di gis ay caaxaan ak aw fo dema dema dem ba defe na sax caaxaan yi dagan na ndax bari gum bari kooku nga ma ngi bëgg laa ko ci fas'alullaaha an jannata iman da ngeen ñaan yàlla mu yeesalaat seen mën moo tax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na itam ni al imaanu qawlun wa amalun wa yaziidu wa yanqusu al imaanu xawlun wa amalun yazid wa yanqus mooy lam njëkkoon wax rek dafa waxaat ci benn hadis ne nee na ngëm wax la ak jëf day yokk day wàññi waxaat ne al yaqin al iman kullu هذا الإيمان لا ينفع في إطلاقا الظن فضلا عن الشك nee na ngëm bu ci sikk sàkk amee ak njot nit ki du mën a jariñu ak njot dafa war a leer nañ ko moom. moo tax suñu borom wax ni innamal mu'minuuna allaziina aamanu billaahi wa rasuulihi summa lam yartaabuu ñi gëm yàlla ak yonent bi te amuñ sikki sàkk ñi nga xam ne falam taxa falam taxab raybu shakk alaa quluubihim lam taxsif raybu shakk fi llaah lam taxsif raybu shakk fi rasuulillah لم تعصف ريح الشك بالثوابت لم تحصف هذا الريح الخبيث أبدا بهذه الطرق التي استخر فيها اليقين mooy ñi nga xamante ni ngelaw li nga xam ne mooy xol yi yéefar yi ëpp na seen i xol mooy ñi nga xam ne dañoo am sikk sàkk ci seen diine am sikk ci seen ngëm nee na ñi gëm yàlla ñoom ngelaw lu egg si ngelaw lu bon loolu nga xamante ni mënut a dugg ci xolam yi nga xam ne nii yaqin egg na seen moo tax nit ki ni muy ñoŋalee diine moom mooy yaqin certitude lay ñoŋalee diine moom ndax bu xasee ba loolu am du ko yàq nga moom moo ne moo tax ma ne inna fatana subuha لأن الحرب تعلن على على الثوابت على الأركان على الأصول لم تعد الحرب تعلن على الجزيئات ولا على الفرعيات bu njëkk ñi weddi woon diine ñu daan xeex diine daawuñu ko attaqué directement dañuy seet bi sew sawal ñu jël dal ci waaye nag léegi ci digg ngëm bi lañu jaar jaar ci digg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ci digg dañ gën a fonk noonu la ñuy weddi ak di ko di ko di ko di ko sëngal ko nooy bopp rek sëngam dana wàññi bu baax moo tax ngelaw la su ñëwee rek xool yooyu dañuy daal di sikki su ko defee ñooñu nag mën nañoo laaj dajeeg koo xamante ni diineem demewul noonu su ko defee ñu laaj ko lan mooy ngëm wala fu ñu war a jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ne am na jamono ñii wax dañu bari lool waaye ñett dañuy dañuy néew su ko defee nit ki mën a laaj dajeeg koo xam ne da koo sànq leen gisee léegi foofu yu bari na ak caaxaan lool nga dem ci biir nekk da ngaa bëgg yóbbu la ci yàlla mu ne la mën naa la yóbbu yàlla ëtëy la woon yàlla ba nawet war la saytaane ak caaxaan moo tax ma ne bu ñu eggee foofu itam nit ñi dañuy dem ci koo xamante ni mooy rajulan laa ya'lamu shay'an an diinillah wa laa ya'lamu shay'an an rasulillah fa ta'ti fa ta'ti al li tazida al-mushakkal nee na suñ ko laajee bu leen tontoo seen sikkam seen sikki sikki sikki sàkkam day gën a yàq moo tax mu ne al yaqin al iman kulluhu yaqin mooy dëgg-dëgg gëm waaye nag layan fam fii doom sikk amee rek du am njëriñ ay yu bëree bëree bëri suñu borom tëkku na ci ñuy sikk sàkk yu bëree bëree bëri bu demee ba nit ki di laaj xalil islam هل محمد صلى الله عليه وسلم حق هل الجنة حق هل النار حق هل البرزخ حق هل عذاب قبل الحق ودي ba nit ki di laaj ndax diine lislaam dëgg la ndax Muhammad dëgg la ndax àjjana dëgg la ndax sawara dëgg la ndax sikki sàkka ci xolam di ko sikki sàkka ndax bëgg koo indi ci àttey àdduna liñ ci àdduna am na xam-xam ci àdduna suñu borom bind loo xam ne xajul ci boppam egseegul ci moom mënu koo lépp lu mu àtteewul ci ko rek mu demee noonu mu jëlee nañ leen ko jox ci benn misaal bu ndaw rek mi ngi mel ne ordinateur xel mi mën naa yaatu lool mën naa am mémoire boobu ci am ko ci def xam waaye nag boo boo ci dugalee boo ci indee programme boo xam ne ko mën a indi. ordinateur rek la doomu aadama gën a compliqué ordinateur ndax moo def ordinateur. ku nekk xam na ne tam fii nii ci biir ordinateur fii nii ci biir doomu aadama bokk doomu aadama moo ko ay milliards yi circulé léegi nag ka defar loolu nga bëgg nag lu ñëw dana ci xalaat ko ci sa xel ba mu nangu ci sa wax nga ne ko àjjana mën naa ku dee nu ñu war a nekkee naan ngay koy imaginer bu ko xalaat te mu ko sa bopp. su ko dee boo ko xalaat nag da ngeen di sànq. moo tax bokk nañ ñi misaalam ku nar a dem sawla dee bay sikki sàkk ci yooyu ak bëgg ko àtte ci àtteeb xelam moom xelam nangu ko loolu day waar waaye nag suñu borom jéggal na ki nga xamante ne seytaane dafa ñëw sikki sàkk dugg ci xelam te moom waxewu ko ko te ma ngay jaamu yàlla kooku suñu borom jégal na ko ndax bu njëkk lu jiitu amana rasulullah wa sallam min rabbihi lu jiitu aaya dafa am suñu borom dafa yi su ngeen xalaatee dara rek luñ ko xalaatee rek doy nañ ci mbugal sahaaba yi dem délégation ci suñu borom dem def délégation ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko wàcce nga koor ñu gëm wàcce nga asaka ñu gëm lu nekk wàcce nga waaye li nga wax ne laa nu téye mënuñ mu ne leen xaaral gi ne bëgg a yem ak nasaraan yi nga xam ne dañ ne sami'na wa asa'na te ngeen a gëm rek ngeen wax ngeen ko déggee noonu. ba mu ko defee saaba yi daal di demaat tuub daje ak yonent bi sallallahu alayhi wa suñu borom daal leen di tàgg euh, ba fa aaya ba yow. in nasina wa axtaana moo tax bu ñu amee nisyaan wala njuumte suñu borom dañu koy jégal. waaye nag la ko waral mooy lañ nangoo def rek ne semaine naa wax atax naa ba saabu yi àndaatee dem nit ki lu xalaat fee jëf kenn du ko ci mbugal waaye nag na bañ a doon euh, mu dem bay bañ a jaamu yàlla ci suñu sàkk ndax yàlla am na wala si ci sàkk ndax àjjana am na ndax sawara am na tax na tànn jaamu yàlla ba noppi bu ñëwaatee ci guddi gi mel nag ak gëm la te fekk moom ak gëm bu bokk bu dëgër ci ne kooku daa daa war dem faj daa war dem jàngi diineem ba ba da cee dem rek génnaat ci loolu mu dundal moom te saytaan itam day ak moom moo tax ñu mel noonu dañu bëgg ñu wax onze bi day mu saytaan la jëm bari ndax suñu borom waa wàcce na ci saafara ci saytaan yi egsi ci sa kaw wa imma yanzaghannaka mina shaytaani nazghun fasta'idh billah maanaam bu la saytaane sondee waxal dafa am benn borom bu jàngal ak taalibeem ne ko soo di bëgg romb ci barab Euh, am fa taxaw yar ab sàmm kooka di sàmm yar ab euh, kël saa yoo rombee kël bi kël bi mu ne ko may def ba jàll mu ne ko damay jeeñee teg mu ko ñett mu tontu ko leen ko tontu mu ne ko soo doon jàll ci ab barab am kuy saabu yàlla bu ko te soo ko doon dee mu boole topp ba xaw laa sonal mooy def mu ne ko ah damay dem naxanteeg moom rek yàlla moom daal déedéet da ngay dem ca borom kalbu ba nuyonteeg moom waxanteeg moom ne ko téyel moom kalbu bi ko téyelee rek moom yàlla mu ne ko saytaan itam suñu borom a ko moom dafa may kàttan rek waaye moom wala naree bu fekkee da laa ñëw nar laa yàqal dellu suñu borom ne ko musal ma ci saytaan musal ma ci kon mooy awoosu billaahi mina sheytaani moo tax xeeti njaboot yeeg yooyu nag awoosu billaahi mina sheytaani rajiim mën na ko gis. waaw ndax jëmmi gam gëm ne mën na laal mën nga koo saafaraal jabar su boobaa da ngay daal di dugg ci loolu. ci mooy yàlla gi da ngay daal yemal ko lay jabar. mooy ku bëgg a dem. kal bu sonal la nga def ko borom kal bu ba ne ko teel ma kal bu ñu jàll ko borom moo xam di wax moo tax suñ demee ba nit ki di laaj yooyu dëgg la yooyu yëpp ñu koy laaj doy na war xam nga am na benn borom bu ñu wax Mouhamad Hassan dafa demoon ci léegi naari benn aéroport ci réewi Golf yi nee na am ko taxaw lool di ko laaj mu koy déglu xam nga ñoom nag borom xam-xam lañu bu doon ko xam-xam bëriwul sax ba ko koo ko waxee lool rek xam naa da koy dóor waaye nag ku tey la ndax dafa ñëw ci moom rek ne ko fekk xam na ne waaraate kanam dafa gis ci télévision yeeg yooyu mu ne ko Mouhamad Hassan wallaahi rabbul ko yow mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne ko kulla laylatin fi l-haram ash-sharif allaahu nekk guddi gi jot ci Màkka. ci Màkka ci Madina. barab yëpp ñu ngi koy ñaan. yàlla dimbali leen di yàlla dimbali leen di suñu borom di seetaan muy rey daal loolu na mën a demee comme suñu borom mën a bëri. Mouhamad Hassan di ma ko mbokk mu ne ko nusratullah boobu ndimbal boobu yàlla war a dimbali. jullit yi xaqan ñu ne ko dimbali moom la koy defal. ne ko ndax jullit xaqan ñoom ne ko waaw. mu ne ko ndax sa waa kër yaa ngi leen di ñu sol li war a sol ndax say gone xam nga fi ñu nekk ndax ñu ngi jàng ci diine lu mu ko laaj rek yaay ko kooku yaay ko déedéet mu ne ko looloo tax mu ne ko loolu mu ko jullit yi nga gis ñu leen di rey ci li ko diine bëgg moo tax na ci am moo tax waaye bu ñëpp marché woon kooku yaay na kooku yaay na bu ko dégluwutoon danaam kii daa weddi rek su ko defee kooka mooy li ma doon wax rek naan bu ñu demee ci laaj koo xamante ni moom xamut lu bari su ko defee di tas yi dañ mu tas chaque tas chaque fan su boobaa sàkkam di gën a yokk waaye bu ñu dee laaj ñi xam nag dañ leen di mën a génne ndax kooka moom ci jógee day daal di soppi beneen moo tax mu ne kayfa tantafiu bi hada din ida habata rihu shakk fi qalbik man ngay mën a jëriñoo lii lañ su fekkente ne nii yaa ngi sikki sàkk ci sa diine su fekkente ne nii sa diine sa sa a jëriñoo kayfa tastafidu al umma bi dodi xaasal yàq nee na xeet bi ñu mën a jëriñoo ci xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la ñu mën a jëriñoo te seen te ñu am si sàkk seen boo seetloo sooratul Baqara suñu borom digg na ci ne ñi nga xamante ne dañoo am yaqiin muy alif laam miim zaalika l-kitaabu laa rayba fiihi hudan lil-muttaqiin allaziina yu'minuuna bil-ghaybi wa yuqiimuuna s-salaata wa mimmaa razaqnaahum yuunfiquun wallaziina yu'minuuna bimaa unzila ilayka wa unzila min qablika wa bil-aaxirati hum yuuqinuun ulaa'ika alaa hudan min rabbihim wa bil-aaxirati hum yuuqinuun ñi nga xam ne àllaaxira dañ ci am certitude nee na ñooñu ulaa'ika alaa hudan min rabbihim ñooñu ci ak jub walaay ko nee na ñoom ñooy tax ëllëg kon nit ki ba mu seet ci diggamam bay ba mu ñaaw jot ci àjjanaam moo tax ma ne laa ko daa walaa ko daa walaa ta asra ayat liman laa la nee na nag min alaamati yaqin an nazar ilallaahi fi kulli amri bokk na ci mandarga yaqin lépp lu ñëw rek nga xool ci suñu borom tabaraka ak di ko dimandikoo ci lépp am na benn hadis boo xam ne bi sallallahu alayhi wa sallam dañu doon wax ni Abi Hurayra moo koy da cee waxoon ne أمساهم إن تلحد نقل إحاده فمن لقيت ولا أحد الغيث يسد لا إله إلا وإنا في النار مستيقنا بها قلبه فبسد بها dafa wax saaba bi ne ko solal dàll yooyu nga ñëw képp koo fekk ci gannaaw miir bi wala sàkket bi tamit seede na yonent bi sallallahu alayhi wa man maa yonent bi te suñu borom moom yoroon tam am certitude ci mu ne woon na àjjana mu ci liggéey certitude la ci liggéey muy yàq yi tam benn addis la boo xam ne day na sëkk mu dëgër mu dafa xeer boo xam xeer boo xam ne muy ci guerre yi nga xam ne yéen a semence la guerre woon na ko ci dañoo ba ci biir bu métti dal nañu fekk jóge nañ ci guerre euh, ku ñëw ci yonent ndax lu ñu rey ci rey ci gileem yi sëfi def ko ndawal ndax nit ñi xiif bu métti waaye nag. waaye nag Omar ibn Khattab ci ngëmam ci yaqiinam daal ne déedéet loolu naa def loolu naa def ndax nee na suñ ko defee dafa xar boobu baax suñ defee noonu li ñuy suñu waruwaay dina wàññi suñu transport dina wàññi ñu ne ko ah dinaa wax dina xalaat boobu indi benn xalaat mu daal di leen law daxmatal xawma lima tabaqa min azwajihim summa daxmatullaah lahu alayha bi baraka mu ne ko nañ wax ku nekk rek la nga dencoon ci aw ñam nga andi ko nga ñaan ci barke boo ko ñaanee rek dina baax nee nañ ba mu ko waxee ku amoon dagg itam mu génne ko ku amoon ab tàndarma nga génne ko ku amoon ruusi cere nga génne ko nee na dem na ba am na yoo xam ne sax nawaat li ñu indi mooy xoof euh, xoof tàndarma nga xam ne ndax ñi ñuy sonn ñu sonn ñu ne xoof tàndarma nga xam ne dañ ko doon jël di ko màcc noonu di ko def ci ndox bu ñu naatee màcc ndax xiif bu ñu xiif yonent bi daal ne comme ñu andi benn mbalaan mu yaatu ñu mu ñu dajale yëpp waaye bu ñu ko dajalee bopp rek la ñu dajale ko ci la amoon ci ñetti jamono yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko di ñaan di ñaan di ñaan ba noppi noppee ñëpp ñëw xew bi ba mu des ñu duy seen ndab yëpp ba mu fees mu des kon loolu xam nga ni mooy baraka loolu mooy al yaqin moom am na yaqin ci ne gëm na yonent bi sallallahu gëm na yàlla ne moo yónni yonent bi sallallahu alayhi wasallam te xam ne ne jóge nañ ci guerre wala jëm nañ ci guerre dëggu nañ te bu ñaan suñu suñu borom dana ko def mu am yaqin rek ñaan boobu ñoom ci loolu lañ seen i ndab ci lañ xew duñ seen i ndab xiif ba ci yaakaar naa ku ci am ay jafe-jafe buñ ne la muñal sax loolu sëñ bi ñaan leen la mooy sax boo génnee nga mooy nga pexe rek moo tax yaqin boobu nag moo jëf yaqin boobu moo jëf ndax nit ki tam pour li nga koy ñaanal daal ko faaw mu gëm li nga koy ñaanal waaw mu am yaqin ci li nga koy ñaanal ñaan nga soog a mën ba ko defee moom ndab la ku ci nekk ndab la nga yoroon dund ko fees loolu la ngëm ngëm na ne ci hadiis boo xam ne nii sadal solo mu ne muy muy ñaan gi ñu tuddee dox naa sayyidul istighfar ñaan nga doon mooy gi may bëgg a jàng jàng ni mooy allahumma anta rabbi laa ilaaha illaa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika ma stata'tu أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت خال من خالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaan gi fu ko def fu ko jàng mooy gi ma jàng noonu allahumma anta rabbi laa ilaaha illaa anta xalaqtanii wa ana abduka wa ana alaa ahdika wa ahsanta a'uudu bika min sharri maa sana'tu atuubu ilayka wa ni'matuka alayya wa atuubu bi dhanbii faghfirlii fa innahu laa yaghfiru dhunuuba illaa anta ñaan gi mi ngi ci xesul abraar ku ci dem da nga ko ci fekk nee na. nee sama saw nee ko jàng ci bëccëg. te am certitude ci seen gëm yàlla. nga faatu ci bis bi. njëkk ngoon di jot. nee na koo xam ne dina na man xaaral laa ñu ne lay nekk moom moo fi noonu di yàlla xamaate xam naa ne si ne foofu di àgg jàll. nee ko jàng itam ci bëccëg. ba noppi gëm ko te am seetlu tam ci sa sa diggante ak sa borom rek mooy yonente bi yàlla mooy yàlla yonente bi moo ko yónni yonente bi yàllaa ko yónni nga jàng ñaan gi ci guddi gi xëy faatu nee na kooku itam àjjana dem moo tax nga xam ne kon certitude am toll ñaan gi am na solo waaye naan day fekk am certitude su ko defee nee na boobaa nekk boobaa te loolu mi su ko defee nag yaqin boobu nag dafa am ay daraja dafa am lu ñu wax aynul yaqin am lu ñu wax aynul yaqin am xaqul yaqin certitude boobu dafa am ñett ñetti xeet mooy nga xam mooy xam-xamu certitude ak certitude boo xam ne dañ ca teg sa bët ak boo xamante ne da nga koo dund moo tax mu ne maa huwa ilmul yaqin lan mooy ilmul yaqin xaaj bu njëkk mooy ban ak lan mooy tam xaqul yaqin ak lan mooy aynul yaqin ilmul yaqin moom mooy nga nangu lépp loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi na ko ci xam-xam wax ko ci yonent yu njëkk yi digee ko ëllëg ñi nga nangu xam-xam boobu nga nangu loolu gëm ko loolu mooy ilmul yaqin mën nañoo wax ne daal ilmul yaqin mooy fiq waaw lépp loo xam ne suñu borom wax na ko ci alxuraan jëmmi alxuraan ak fiq loolu mooy ilmul yaqin loo xam ne yoon na ko nga xam ne li xam ilmul xam-xam boo xam ne am nga ci sëñ su ko defee ay na jàpp mooy ñu demee ba ëllëg ñu ne sawara ma nga ne àddina ma nga ne rek seen loolu mooy ay na jàpp ku ci nekk nag bu ñu àttee ba mu dem fa mu dëkk kooka ñu ngi ci xàqul yàq yi ngi dund moom misaalaat ko ci ne moo tax xàqul yàqin moom aynul yàqin ñu baax ñi rek da ko suñu borom ñu waaye fii ci àdduna moom muy li la jàng lépp mu gëm ne lii am na te yonent bi sallallahu alayhi waaye nag bala ngaa am aynul yàqin Euh, kooku nit ki dafi bàyyi ko soog mën a am su demee bañ àtte ko ba jugé ko moo leen dugg kilomètre lañ soog a moo tax ñu nekk barsàq ñu ca aynul yaqin waaw ah, ndax gis nañ malaaka fekk leen seen bàmmeel ne la yow la doon def loolu def ci àdduna xam nga nit ki bu demee ba faatu su suuf bu ñu ko solee ci ba wan ko gannaaw wala ko néew rek malaaka yi dañ ñëw dekkal ko fa saa su moo tax yéen dub salance daan wax bu ñu dañ nit maanaam da ngeen ko da ngeen ko ñaanal yàlla gën a la layam ndax bu ñu ko wanee gannaaw rek malaaka yi dañ ñëw dekkal ko fa saa su laaj ko loo doon def am mooy sa borom loo rek lan kooku day daal nekk ca benn yàqin moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom nag dund na aynul yaqin ndax laylatul isra wal mi'raj muy tombé bis bi demoon na ba gis àjjana ba gis na mel ak ak taar ba ak na mel ak loolu mooy ci misaal ki ñëw ne ki nga xam ne wóolu bopp ñëw ne la de am naa ak lenn am naa lemu piir. kon ñu teewlu li waxtaan bi waxtaan bi. kon ñu ngi woon ci woon. ilmul yaqiin ak aynul yaqiin waxoon naa leen ni eh, ñett yooyu yëpp daje nañ ko nit ki wax ne la am naa lem lem boo xam ne li wax piir la su la ko waxee am yaa ngi ci aynul yaqiin leen lem gi ba nga gis ko yaa ngi caa yaa ngi caa soo mosee lem gi nag ba xam ne lem gi noonu mooy kon yaqin nag daraja yooyu yooyu noonu lay gën a kawe boo xam ne nit doomu aadama di jaamu yàlla yoo xam ne moom may ci ilmul yaqin ko waaye da nga fa ba ilmul yaqin boobu nga dëggal muy lépp lu suñu borom wàcc wala wàcc ko te topp ko te jëfe ko ndax koo xam ne kenn ku nekk da ngay mën a yàq maa ngi doon yàqal day yemul ci yow waaye nag il ma yàqal du amul maa ngi doon yàqal du am njëriñ ndax suñu borom dafa sant nit ki bu bu yabalee yónnee day ci moom rek ñu ñëw gëm ko bu ko defee mu gërëm moo tax ki nga xam ne gëmul xel mu nekk mën ko bu ëllëgee boo xasee yàq ñëwee rek du ko mën a njëriñ dafa am nag benn. famille boo xam ne dañoo jàngale ñëpp wàllu ngëm suñu borom tabaraka wa taala ci laay tëjee waxtaan bi xam naa muy famille yonent yàlla Ibrahima xam nga yonent yàlla Ibrahima euh, euh, Haajara doomam di Ismaayil yonent yàlla Ibrahima noonu yàlla ñoo dajaloo di taal sawara di ko taal ay semaine ba bu ko ñanaaw tiimee sax na di génn ñu dëggal yonent yàlla Ibrahima ci biir ndax dañoo dañoo wax ne asab ma ay ndal asab la ay ndasal ma dañoo wax ne muñ ci njëlbeen nga ko koy mën a def muñ ca contact bi nga mën a waaye bu la dara loree nga wër fu ne nga fa xamatoo ko jëm nga ne ngi muñ bopp loolu muñ waaye bañ ne ko ca sànni ko ci sawara wa euh, Jibril ñëw ne ko alaka xaaja ndax am nga aaja mu ne ko xasbi Allah xasbi Allah suñu borom daal di sawara mu sedd mu ne muy bardan wa salaam su ca boole ko nga xam ne galaas bi rey ko muy bardan wa salaam ak salaam suñu borom jox ko ndigal ko seet ja moom xaaja lay Ibrahim sànni ko ci désert boo xamante ne ba boo daanaka bu bu jant bi day mel xam bay yàq ay bët ndax tàngooroo. li ko yonent yàlla Ibrahima wane gannaaw dem mu ne ko ndax dañ ñoo boole yàlla suñu borom suñu yonent yàlla Ibrahima teel yëgal bopp bi mu ne ko ah kon laayu dayu laayu dayu gannaaw suñu borom nga ñu boole suñu borom dañu sànq ba mu fa nekkee. ci la ndoxam sam-sam foofu la ko moo tax ñu daal suñu wàllu daal mooy comme daan daan nga jiw ba dañuy fi wàññi quoi demee ba sama mooy sax dem na loolu la jógee. yonent yàlla Ismaïl ku nekk xam ne génn gént géntu yonent farata la ci moom bokkut ak nag gént yi gars yi gént yi rek. léegi ko xam day génn day lekk la sëñ bi maa génn naa demoon naa demoon loolu moom tubaab kenn de lu simple bu gàtt moom koy tubaab te nga xam ne moom suñu borom da koy farataal ci moom lu mu gént lu gént yonent yàlla si maa ne ko damaa génn moom ma day leen mu ne ma nangu loolu kon ñooñu jàngal nañ yaqin waaye nag sëñ Touba dañ ñu ko jàngal ba mu nekkee ja yoonu géej ga di dem waxtu julli wa jot tubaab bi ne ko boo jullee ci sama gaal rek ma tooñ te mbir mi noonu la amee noonu la ko sëñ bi nettalee bu kenn defe ne fi daanu tamit ndax sëñ Modou Khalifa ñaari mosul wax na ne sëñ bi nettalee na ko kon moom déggee rek noonu la day xis sa bopp na daal dem ba ba naan ñëpp di ko nettali waaye ni amee rek noonu la rek donc mu ne ko boo jotee sama gaal dama ko te da nga ñëwoon doo tooñ sa bopp doo tooñ sa bopp mais ñi ne ko ñi gaal gi dañoo jékki-jékki rek gis sëñ bi sëgg ka si gi kooku itam boobu jëfandikoo na ko yàqee kon nag ku yaakaar ko war ngaa gëm a a bañ a nekk rek ci léew ndax nekk ci léew yi du tee baax du tee sell ndax jaamu yàlla ci barab boobu tuuraangee sax la ko baaxee kon ku ci nekk itam seen gëm da nga ko war a gëm dëgëral bu baax a baax te bañ a ñëw ci tubaab yi jël làng yi kese te jël ñëw sax xam-xam bala mën a jëriñoo am na ñoo xam ne toppandoo tubaab bi waxinam dong la ñuy jëriñoo waaye duñ jëriñoo sax ci xam-xam ba nañ ne boo waxee boo waxee tubaab rek neex na am lépp ko def doo mën a am na ci koo xam def conférence Italie daf bi de sa amoon naa waaye damaa amoon ak mu ne ma sëñ bi daal sa conférence bu wàññiloon maa ko ba jekk waaye heureusement rek ma am tàggu métti koo xam ni malheureusement la bëgg a wax mu ne ma wax dëgg yàlla daal wàññi naa ko ba jekk waaye heureusement rek ma am tàggu métti koo xam ni moo ma téye xam nga kooku la ñu jëfandikoo rek waaye daal waaye bëgg naa dégg tubaab bëgg naa dégg tubaab rek taxaw bëgg a jël baax a baax Euh, li sëriñ bi bëggoon zuriyatan tayyibatan day yàgg ñu ñaax jënd bi sant ak daxir joojee si wàllu ñaan ñu fexe ba njaboot ji fi am yëpp ñu ngi sant wàllu ay bu baax a baax di leen soññi dañ wax ñu gën a fonk bu baax di gën a waajal kàddu yooyu dañ ñëw rek jot ngeen ko di leen bu baax di leen wassalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh